ne Cheikh Oumar Diagne ndax dama jàpp ce qu'il a fait il a eu l'aval euh, de de ses supérieurs. Hmm. donc yo, c'est quoi ton ressenti. xam nga man pour man. oui. sëñ Bass dafa rafetal. Hmm. waaw loolu laa jàpp. te loolu nag mooy taxawaay moo cëram loolu mu noonu def. yaa ngi dégg. Hmm. parce que loolu. li muy andi mooy ressentiment. ak crise diplomatique. parce que commencé woon na aussi. Wa. Ah. Y'a ngi dég. te xam nga gis nga suñu mag yi suñu kilifa diine yi li yàqu du jóge si ñoom ay dañuy ñëw rek xam nga sëñ Muntaxa Basiru mii gaddu koor Macky Sall yi mas nañ ko bloqué mu jëm si jumaaji ñu bloqué ko mu ne man maa def toor maa tardé dégg nga ba delluwaat këram dégg nga ñoom hmm. diplomatie bi ñuy dawal hmm. da leen permettre du ñu def yenn yi hmm. moo tax chaque jour damay wax gis nga nit bo nekkee ci opposition facilement nga méré. kilifa diine mais yow do xam parce que kilifa bu ñu nekk. waaw non kilifa diine modul yedd nguur ci pinch. Mais kilifa da kenn ko yedd. Deng. ah léegi yow da ngay toog nga naan pourquoi kilifa diine gi wax mm-hmm. si matin midi soir dañuy wax dañuy yónnee dañuy woote dañuy woolu nit ki mu ñëw ñu wax ko dénk ko. mais duñ ko étaler sur la place publique mais parce que loolu war ñu ko def a exactement mooy diplomatie dont tu waaw loolu loolu. Mm-hmm. mooy li am. Mm-hmm. léegi su dee lettre dafa am. lettre bi fuité lettre bi. Cheikh Coro Mbàkke xeeb naa ko ci trop. waaw mais man. parce que munoo munoo jël munoo jël waa ji. Mhm. saraxe ko noonu. ko noonu rek naan nitu Macky la. waaw waaw <laughs> c'est trop <laughs> <laughs> nekk nañu opposition vraiment. xam nga xam nga xam nga comité d'organisation. Mhm. bu màggal de Touba. Mhm. amul coloration politique. nga sëñ bas. te ay sëtu ñoo ci nekk. la ñoo téye euh, non xam nga xam nga sëñ bas. Mm-hmm. daa fonk famille bi. Mm-hmm. moo tax cër bi da koy mm-hmm. cër bi ñëpp la koy jox. ba ca coowaa daaru musti ñëpp lay jox ci cër bi ci comité d'organisation def ko ay pàcc muy ay commission kon kii bu dee moo yore commission relation extérieure mu yàgg ànd ak Macky Sall ñàkk yàgg ànd ak Macky Sall liggéey bu muy liggéey ci màggal bi amul coloration politique léegi bu dee lettre bi dafa fuité te moom jàpp na ni lettre bi fuité mm. moom jógewul ci moom mm-hmm. waaye lettre bi am na ndax créé wu ko yaayu les les Baba Aïdara tout ça euh, léegi lettre ba mm-hmm. ñuy naan am na amul mm-hmm. Serigne Abdou Lahad Ka le maire de Touba effectivement, les mm-hmm. délégations ont été éconduites mm-hmm. au King Fat Palace. Mm-hmm. ma gis kenn mu bind commentaire mais Touba King Fat Palace. xam nga xam. xam nga expliquer Touba invité. des délégations étrangères. au dañ leen di defal cortège mm-hmm. ndax ku nekk mënoo ko jël yóbbu ko mm-hmm. muy dugg si xat-xat mm-hmm. donc cortège la te en général 24 heures avant que nga leen di assemil ñëpp xam nañ ni avion ak réservation kii mën na 24 heures avant kii ñëw 48 heures à l'avance ak mais il faut les regrouper quelque part yaa ngi de jas lan moo fa nekk radison travail. cher lool. te privé la. Mhm. King Fat Palace ma fàttali waaw King Fat non King Fat. Mhm. réew mi ko moom. cest à amul loo siy perte xam nga lan la. Mhm. waa ji day occupé. ah waa ji déduire ko. cal kii wala kenn occupé wu ko mu nga am zéro franc. <laughs> déggul lu mu la de. c'est-à-dire doo jël suite présidentielle bi am nit di ko loué. nga ñëw ne ko dama koy abale.

du matin au soir mm-hmm. ndax mm-hmm. wax day rafet mm-hmm. dégg nga du wax day rafet taxawaay day jekk dégg nga du baax mais comme que wane nañ nii man xam naa ne suñu kilifa diine yi danañ gën a defaraat seen taxawaay ba dootuñ leen ñaan dara ma ne Doudou foofu euh, waaw ubbil kii ku ku nga jël ko nga dugal ko waaw mais vérifier ndax son bi baax na. Oh. Euh, ndax euh, ndax gis naa sànq ci TikTok am na kenn ku ne euh, am na kenn ku wax ne. Oh. ñoom du ñu dégg son wu appel téléphonique yi. Oh. dégg nga saaliw voilà nga nga veillé si donc foofu duudu pour pour pour aller plus vite. waaw bu fàtte ñu ngi xool suñu temps yi ah. Hmm. donc une heure moo ñu des. <laughs> voilà léegi dama dama man foofu lu lu ndaw rek laa ci laa ci dolli mooy. Euh, man dama jàpp ne lu mënoon ñàkk la. Hmm. parce que euh, gan ganale. Hmm. te pour un état euh, pour oui du jëlal kooku. alors. maaleykum salaam sëñ foo ñuy wooyee. waaw ñu ngi lay nuyu. Hmm. jërëjëf jërëjëf leerul trop de wàññi son bi tuuti Saliou moom moo war a wàññi son waaw wàññi son retour bi tuuti Saliou bi continuer Saliou wàññi son retour bi waaw saa yu génn rek lu lu lu lu la jot lay doon. Hmm. dafa am dañoo loo xam ne dafa am ci lu nekk ci ñoom moom ndax ci li ñuy wax ci kilifa bi nii kat dem di wax man damaa gëm ne amul li may wax dama doon wax toujours rek gëm ñu dem ba tey lañ doon wax ci opposant la buñ fa nekkee tëri ñoom wax lu nekk fukki aw fukki li nga xam ne ko wala ñu wax